adresse bi Dakar la en face cinéma Thiaroye jàpp leen mbokk yi à deux pièces détachées poids lourd ñépp xam que si ay bagages yu baax lool te garantie andil na leen à de énergie di ay batterie poids lourd yu am puissance da ngeen bëgg ay batterie camion puissance en chevaux taamu leen à de énergie ndax kat seen ay batterie benn la ci réew mi am nañu ay batterie douze voltages am na ñu quinze aspect am nañu cent am cent vingt am nañu cent cinquante am nañu également cent quatre ba deux cents aspects Ada Energy batterie bi la ñëpp di wër c'est la meilleure incontournable du marché gaaw leen gaaw jëndi ko ci Ada pièces détachées poids lourd téléphone 77 692 65 65 ou le 77 577 97 29 email ada2psl arobas gmail.com adresse en face cinéma Thiaroye Dakar Sénégal